sëriñ Moustapha Gueye imprimerie Cheikh Ahmad Bamba moo leen indi yóbbal bu am solo ci màggaluk Daaru Salaam gi ñu dëkkmal mu di marsiya bu Cheikh Moussa Ka def jëmale ko ci dund ak jaar-jaari maam Cheikh Anta mu def ko itam ci ndigalu xalifa sëriñ Moussa Ka marsiya boobu nag mbokk yi am gu mu am solo tax na sëriñ Cheikh Anta moom sëriñ Modou Rokhaya di sàkku ci mbooleem taalibe yi ngir ñu wut ko ba gën a xam jaar-jaari maam Cheikh Anta Mbàkke ni bii mustafa gay indi and ak Serigne Modou gay mi ñu am ci ndigalul khalifa Serigne Moussa Ka ñu and ak setup Serigne Moussa Ka ni Serigne Abdou Ka ni doomi Serigne Saliou Ka ko ko do to umbale dara ci yoonu murit kon nak ma ngi ñaanal Serigne Moustapha gi mi nga xamne moko mol Serigne abdoulat Ka yëkkati ay kaddu ci ndigalul khalifa Serigne Moussa Ka ngir xamale len ak téere bi. téere bi yi lambu mi nga aju mouride deglu len la dalon yonnen ya nato di kerkeran jaaraaw mam Cheikh Anta mam Anta ndjay marsi Cheikh Sidi El mukhtar ak bis bam gone aduna mom mam Cheikh Anta fa mam Cheikh Anta jaron, at ma Serigne massa Mbacke juddoo euh, mas naa yoral Cheikh Bamba kërëm amon ci réew mi. moom maam Cheikh Anta ñaari doomi Anta xarbaax yi maam Serigne Gaawaan di maam Cheikh Anta yeneen i xarbaax yi mu def ak na mu demee li ma gis ci leetar yu ko Serigne Touba mi ngi ci biir téere bi la Bamba waxoon waa Sénégal te jaare te te wax ko ko moom maam Cheikh Anta mi mi mi mi ngi ci talaata lañ koy yeb ci gaal gu ñuy wax Express ma nga ca la xewoon ca kasasi atum kasasi ba maam seex Anta di sanc Daaru Salaam mi ngi ci ba Alhaaji Malick ba Alhaaji Malick faatu ca Tiwaawoon na ca maam Cheikh Anta doxale ak lam def ca ñaan ga ak sarax sa la maam Anta defal waa Canaba euh, ba Cheikh Sidiya Baba faatoo ci réewum gànnaar euh, na mu ca doxale moom maam Cheikh Anta ak maam Cheikh Anta ak ca xew ak ñam àndaloon la maam am Anta amoon ci ay cheikh ak seeni tur mbokkam yam yoroloon boppam te teñ bokk askanu mbake tem yaral leen boppam na na mu demee mu ngi ci biir la maam Cheikh Anta amoon ci ay bëkk ak seeni tur mu ngi ci biir Euh, la mam Cheikh Anta amone ci ay chauffeur ak niñu tuddu mi ngi ci bir ña maam Cheikh Anta amoon ci ay kat, ñi ngi ci bir ña maam Cheikh Anta amoon ci ay secrétaire ñi ngi ci bir guddi gamu beti diko top, diko top bag ci guddi gëmu wujjee sunu borom subhanahu wa taala mu teji ko nak ma delu ñaan ci yalla ak yam andal ak najima burati ak ak euh, xasida gu tuddu hadihi hadiyatun nga xamne sallallahu alayhi wa sallama daraam euh, sunu borom dako bayiwut kawruk bopam boppam nga la ca sax ci ay kawar limba ak sikkim ba ci boppam nga xam ne dara desu ci na mu toll ci ab lim ba wax ne ku ko mokkal doo doo doo doo doo doo gumba gumba xol te doo tàbbi safara yëpp mi ngi ci téere bi. mbokk yi téere baa ngi noonu képp ko soxla. jokkool ak Serigne Moustapha Gueye imprimerie Cheikh Ahmad Bamba ci numéro yi. 77 632 13 55. bii képp koo xam ne da ngay gëstu mbirum maam Cheikh boo ci ñëwee da nga am dellukaay delluwaay yu wér.